du tuus ngir mun a jot ci ndimbal li dong la te dégg ngeen su njiit yi ñuy sant ak di gërëm ngir maande gu amul ab ci suñu tur ñun ñi fi nekk ñi fi nekkut jagleel ko ñi ñu jox ndimbal li xool leen yi koo ci gis mu ngi bég di layam layami suñ kanam di daagu mel ni ndimbal li seen ñaxi bopp la sabab ñun nag ñun askan wi nga xam ne amuñu kaddu amuñu fayda ñuy fecc ak di woy jagleel ko ndimbal lii coo ñoo ñàkk fayda ma ne leen ubbi suñ bët yi xool te xam ne ak njoboot munta sosu faites le taire bàyyi koog man kii teele mujj wax ci mbooloo wul ci len lu dul yelwaan gu sax dak dak dak te gis ngeen ne xewu may gu mel nii diiru fanweeri at mu ngi am fii ak feneen ndimbal lii ñu ñuy séddale moo ñuy rey rey na bépp jom ak ngor gu nekkoon ci suñ biir coo ñoo ñàkk jom kenn amatu fi jom ndax xam ngeen ne réew yi ñu yónnee may gi ci jéppi ak tiitar dañuy ree sax fañ dëkk ndax xam ngeen loolu rax ca doli suñu doom yu góor yeeg yu jigéen yi nga xam ne ñu ngi dund ca seen biir foofa ci bitim réew gàcce rey na leen munatuñoo sigi xool kenn siggi xool kenn ndax gàcce dëgg la suñu réew mi coono gu nekk wàcc na fi mbajal mu nekk wàcc na ci réew mi waaye loolu ñun ñoo ci war a taxaw du kenn ñun dong ñoo ci war a mun a taxaw suñu maam Kocc Barma nee na su fekkente ne bungaaree as gor dee ko jox suba gu jot li muy dunde bu yàggee nga soppi ko mala dak ngay doon dak wax naa leen li fi nekkoon di korkoral ci jom ak ngor ndimbal lii lekk na ko ndimbal lekk na bépp jom ak ngor gu nekkoon ci suñ biir du gis ngeen xiif bi ak mar bu métti bi nekk fii ak ñàkka tolu gi rafle wi ndax xam ngeen lu ko yokk ma wax leen li ko yokk gis ngeen réew ci boppam bu fekkente ne li muy dunde ak di ko wodoo mu ko yaakaar ci réew ni moom gis ngeen réew mooma li ko dale ci doomam ba ci ay seet seetaatam benn kaddu dong la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf